jël conseil économique social ak environnemental nan nga gisee décision boobu nga xam ne jël na ko moom. liberté autonomie d'un homme politique décidé engagé wu. moom moo mën a tontu li concrètement lu tax mu accepté jël fonction wu président conseil économique social environnemental. loolu tontu na ci nee na réew mi moo ko ñor wax na ko. duma ci commentaire. donc nga ko. autonomie ku nekk dama lay respecté ci autonomie nit ñi ñi amee sañ-sañ wax déet noonu luy sañ ñeneen ñi amee sañ-sañ wax déedéet ñiy wax am sañ-sañ wax waaw ku nekk na sàmmal boppam sàmmal moromam li nga xam ne mooy ay devoir ak ay droit am bu ko defee jamono ñooy. mais kenn mënul nettali géntu jàmbur mooy benn ñaar kenn mënul yóbbu nit ci yoon woo xam ne arrangé wu ko am na ñoo xam ne ci politique mënu ma ànd ak ñoom. pourquoi les bëgg par force ñu ne parce que da nga war a tudd opposant que nga war a àndi allié ak ñoo xam ne yaa ak ñoom bokk leen ay valeur bokk leen ay gis-gis pourquoi nit bëggul ki nga xam ne moo nekk ci nguur gi bokkul ak moom ay valeur d'accord ah, bokkul ak moom gis-gis mhm. mu ne du ma ànd ak moom nga ne ko mais pourtant mën nga ànd ak moom laaj loolu c'est une forme africaine de la politique man nekkuma ci loolu mais je pense que lii di nga ci loolu mën naa la ko nangul raawul mooy la mais li nga xam ni waxoon na ko ci conseil économique social waxuma sax li mu waxoon ci Macky Sall waxuma sax li mu waxoon ci gouvernement bi mais ci ci conseil bi ñu ko bi ñu ko yóbbu rek mu waxoon ci lam ci waxoon yépp que amul njariñ que amulul njariñ réew mi que dañ ko fi war a jëlee loolu aussi amoo ci benn problème ci mu accepté ko dem ci jël jël poste bi naa la du ma jugé nit ñi ci parce que dafa waxoon lii tey moom mu wax li ëllëg ok euh, Marx si ñi nga xam ne ñoom Karl Marx mooy seen yàlla ci politique mhm. dañu naan faral di wax naan il faut une analyse concrète d'une situation concrète Idrissa moo xam ba muy wax ne dañu war a supprimer conseil économique et social environnemental ci campagne électorale def ko ci programme am d'après les informations yi nga xam ne gis naa ko parce que en réalité man euh, jànguma programme mu toog tey situation yeeg si mu analyser ko jàpp ne. buñ ko fa namee war na koo yor parce que foog na ne mën na ko yoree bokk ak na mu foogoon ni noonu lay doxee. loolu Idriss Seck rek la engagé. man li ma engagé mooy massifier le parti des libéraux démocrates ànd suqali li ma intéressé fi ñu toll mooy fexe ba am ay représentants dans les communes et des maires li ma soxla mooy fexe ba ñu am ay députés en deux mille vingt deux et enfin li ma soxla mooy prendre le pouvoir en deux mille loolu mooy suñu objectif. d'accord Idrissa il a fait une option il est possible que moom option bu nekkee conseil économique social environnemental am na objectif bu mu ci fixé. d'accord alors kon Babacar bu ma la déggee da ngeen di am candidat en